essayer de rationaliser nos dépenses parce que loo mën a waxal OS nag mën ngaa nangu ne c'est un homme rigoureux. c'est un voilà. d'accord maa ngi ñëwaat ci yow le ma ma dem ci. ah, ah, ah hmm. mooy sénégalais yi dañoo fal président Diomaye. Hmm. pour président Ousmane defar réew mi. Hmm. loolu la noonu lañ ko mën a daal ñoo fal Diomaye. pour Ousmane defar réew mi. Ousmane defar réew mi beneen bi président Sonko comme li Mansour wax man dama ci dàkk mooy dama gëm ne dafa war a yor poste bu. symbolique am solo sax xamul hmm. tax. Sénégal yi bëri seen rêve c' est de voir Ousmane Sonko honoré par l' administration. Hmm. mooy liy symboliser administration moo xam force de défense force de sécurité. de manière générale. gis nga keroog visite bi palais. donte seen gisanteeg président Macky Sall accolade ba yooyu xamal la ne lan la. honneur yi ñuy déroulé président Ousmane Sonko. dafa hmm. am bëri Sénégal yoo xam loolu seen rêve la. Hmm. d'accord mooy dañ jàpp ne kii dafa souffrir ci loolu. Hmm. et que ñoom seen gént balaa ñu am lu leen neex muy gis ñooñu noonu xëy na daan ko jàpp daan ko wàcce daan ko pompe di ko tóojal. am na sénégalais boo xam moom looloo nekk ci xolam. looloo nekk ci xolam yow kay baal ba 4 avril rek. Ah. <laughs> d'accord 4 euh, ma bàyyi la nga placer un mot laataa may ñëw ci. gan baal ba 4 avril rek ma bàyyi ko mu déroulé moom tey. <laughs> mooy euh, ñu ngi ci benn ponk donc yëkkati woon naa benn foofu laay ñëw ci maître après ma ñëw ci bii nii mais apport Ousmane Sonko ci euh, prochain gouvernement bii nii naka la war a nekkee. waaw xam nga man. sénégalais yi ñooy gis ñaar mais man benn laay gis démb ci jotaay ja ma toogoon ma laaj leen lan mooy naar bi ak ñu ñuy jouer naar bi ñu ne ma naar bi par exemple ay cote la may leen léegi su ma buggee jouer man nan laay def ba du ma perte ngi ne ma da ngay miser ci Real de Madrid parce que ñoo gën a taxaw ci club yi mu ñu ne ma léegi Real de Madrid bu fekkee dañuy am match boo xamante ni cote 1 la soo tegee un million bu Real gañee da ngay am 2 millions ñun maanaam dañoo teg tontin benn président teggi ñaari président. noonu nga ko mën a misaal. waaw promotion dañu am promotion. ñun promotion la ñu yàlla defal. <laughs> alhamdulilah dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax donc kon foofu du ma ca avancer trop parce que sénégalais yi dinañ gis li may wax d'accord xanaa kay moo li ñii di kii ay dafa war a kii nii xanaa kay Ousmane bañ ko te Ousmane du ko bañ ndax Ousmane son rêve c'était sa mu am koo xamante ni ñoo bokk vision il me l'a dit li gën a tuuti ci li may xeex li ci gën a ñàkk solo mooy nekk président de la République mmh. mais juste ànd ak le peuple sénégalais éveillé ñu jëlee fi lii fi nekk. d'accord après nag kii ñëw fa lillahi alhamdi yàlla na nekk le porteur de projet. lii daf ma ko wax. mais j'aime bien toujours quand mon peuple pense ainsi. Ndiouga Thiam non c'est pas cette fois-ci c'est pas Ndiouga Thiam oui c'est Mame Thioune. nee na les gens les ennemis sont toujours dans ce pays. soyons unis, plus de vigilance e accompagner le président Diomaye à travailler le pays. Plus euh, d'agacement sur le projet. xam nga soo amee un peuple qui pense comme ça sa xel dafay dal. mooy ci fañ dox ndoxtalee waxtaan bi. Mhm. donc maître Tall wax ko. mais li ma ciy dolliwaat rek mooy que ni. dolli ko ci ma ñëw ci moom. nguur gi du nguuru kenn ku dul nguuru le peuple sénégalais. Euh, xoolal ni résultats yi demee partout dans le pays ci région yëpp yi nga xamante ni dañ ne au fois-ci am nañ koo xamante ni. dafa jël un programme pour le Sénégal owuñu ci idéologie kaay leen man maay parti socialiste jàppale leen ma man maay alliance pour la république jàppale leen ma man maay parti démocratique jàppale leen ma mais dafa jël le peuple dafa dafa dafa gis koo xamante ni dafa leen indil seen yëf voter pour un projet fal leen projet bi donc sénégalais yi bi ñuy tabb xooluñ sax nit waaw cette fois si am na ndigalu woteel leen kii waaye xooluñ nit boobu dañoo gëmm dóor c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle une confiance aveugle une confiance aveugle mmh. et je suis sûr et certain que ñooñu ñu jox cette confiance aveugle ils en ont très conscient xam nañ bu baax a baax a baax a baax li leen jox ñooñu ñu jox cette confiance aveugle je sais que dinañ am une reconnaissance à cent pour cent envers ce peuple parce que seen souci musul nekk lenn lu dul la bien-être des Sénégalais amul kenn ku fi xeexal Sénégal mës sa jaral ñu dàq la ki sa liggéey amul kenn ku fi xeexal Sénégal mës a jaral ñu lay jiiñ yu ñaaw ngay continuer di foncer. amul kenn ku fi xeexal senegal mu sa jaral mu leer la yow tey jii nii guddi gii nii nii mun nga bañ a fanaan sa kër ndax état nag bu yónnee ay sniper dañ lay rey munoo rëcc fenn nga continuer di def loolu. Mhm. kon kooku man de. sa lenn daal lay wax sénégalais yi. waaw ñu daane ku ci nekk ca wàll wa nga nekk ak ca boor ba nga nekk ak ca na nga mhm. nañ leen ogos loxo yi. Mhm. gën a takkaat ndigg yi. te xam ni yàlla dafa dégg nag suñu suñu wax mhm. yàlla dafa dégg suñu wax yàlla dafa dégg suñu mëbët mhm. yàlla tontuñu mhm. nous sommes un pays à soixante quinze pour cent jeunes critères yi ñu du yi doon ñaan yàlla yëpp ne suñu prochain président moom la ñu bëgg moom la ñu yàlla indil vous êtes un pays à soixante quinze pour cent jeunes ma indil leen un président jeune vous êtes un pays qui aspire à un changement radical ma indil un homme qui correspond à ça ci rigueur am ma indil leen vous êtes un pays qui aspire a une gestion transparente ma indil leen ku jub mm-hmm. ma indil leen koo xamante ni ku sell ma indil leen koo xamante ni sa relation avec l'argent c'est un mais désintéressement total te li may wax xam naa ko bu baax a baax a baax Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mm-hmm. incha allahu rabbi bu benn sénégalais di sax toog di am sikki sàkk yàlla dina yàlla mi yàlla mi ñu indil liñ ko ñaan. Hmm. yàlla dina ci continuer teg ci loxoom. d'accord yàqkat yi bu yeboo ngeen découragé teel a découragé bañ a bañ xam ni du jàll. du jàll du jàll du jàll du jàll sa